maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di bala wax ñëpp di laabiiri nit ñi ne bisi màggal yi ak guddi màggal yi dañoo mat a bàyyi xel ni dañoo màggal si defe ne màggal na màggal gi jotagut ma misaal ko lu mel ne suba suba mooy ñaar fan ak juróom te guddi gi ñuy màggal mooy bu jant so di ñaar fukki ak kon bala ngaa màggal jant day so nga door màggal guddi gi waaye boo yendoo ajjuma ji def say siyaare rek defe ne màggal nga. da ngay waajal màggal waaye màggal gi egseegut kon guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar mooy guddi kaso rajab mooy guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar nañu ko bàyyi xel bu bu fanaanee nag ca suba ga mooy doon bëccëgum ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu di ko woor muy ci gaaw bi kon bisub ajjuma bi def ci lu baax baax na lool siyaari ci baax na lool waaye màggal gi egseegut balaa màggal gi egsi nag jant daa so ajjuma ca guddi bët sedd gaaw mooy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar nga dundal ko boo xëyee woor bëccëgum ñaar fukk ak juróom-ñaar ca gaaw ba loolu laa doon leeral ni ñi ndax dañ ci dañ koy réere lool jërë ngeen jëf